alhamdulillahi fi sirin wal ilaanin wala abdulillahi ma lillahi min saani falhamdulillah maani la haun wala alifun wala abdu haun wa hamsun summa la maani bizalika aljamu qad sara alkamalu lahu farqan wa jamaan wa jamaa aljamci fi aanin salla alayhi ilahu alarsi mujtamiat fihi alxaqaiqi min aanin ila aanin mbokku jullit yu tedd yi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 di ko ñaan lépp lu ñu jaamu mu néew mu bari yàlla nañu ko boole nangul te matam nga ak mbaaxam nga na mu toll te bañ ñu ko nangulee ci suñu mata dégeeg manqué gi bën a toñ di ko ñaan moom buur bu màgg bi mboole rëcc rëcc yi ñu yëg ak ñu yëgut yu ñu tey ak ñu teyut yàlla ñu boole labal ci géej njëggalam bu yàgg bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu del si waat ak yéen ci kàttanal yàlla ci seen émission bu ñuy tuddee albayaan ci seen télévision bu ñuy tuddee seen Senclic TV ñu dikk ak ci tomb bu am solo muy jullit buñ ko waxee rek jikkoo tax jikko te yonent bi sallallahu alayhi wa doon na jàngale jikko yu kawe yi dañ koo séntu ci jullit bi jikko yu màgg yi jikko yu tedd yi waaye jullit boo ne jàkk xool ko gis ci moom jikko yu doye di yu suufe yoo ko xeebe buñ ko joxeñee ni ko jullit nga ngir ay rakkaam ñoo ngi koy tooñ waaye loolu du sabab bi kon daal tomb bi am solo bu ñu war a waxtaanee mooy jàngoro ju lëmbe réew mi rawatina suñu réew mii ñu nekk di senegal mooy jàngoro ak fen kenn ku nekk xool noo ko fajee ci sa dund ndax sang bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi fa ñoo mos dajaloo bis ne ko yenenti bi ndax jullit bi dana sàcc mu ne aha ndax jullit bi dana naan sàngara mu ne aha ndax jullit bi dana njaalo mu ne aha xeetu mooy yàlla yi buñ ko wax ndax jullit bi dana def loolu mu ne aha waaye buñ ne ko ndax jullit bi dana fen mu ne déedéet al mu'minu la yakdibu jullit du fen boo xoolee nag suñu pénc mi nee ko la wax te booy wax tey jamono ji ñu tollu jëmale sa kàddu ci dëgg dañu naan amul respect amul xorma xamul nu muy waxee xamul nu muy communiquer fekk alors que dëgg moo diis dëgg moo tàng te képp ku jub rek képp ku jub jub jubal yow yaay doon noonu nit ñi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne ku baax la ñi baax ñépp seen mbaax mi ngi ballee ci mbaax bu rasulillah ñi tedd ñëpp seen tedd ñu ngi tedd ñu ngi balee ci teddug rasulillahi ñu kawe ñëpp seen kawee mi ngi ballee ci kaweeg rasulillah yenent bi ko baaxoon la waaye gis nga bu mu nekkee màkka ñooñ màkk ñëpp a ko bëgg fan ko fonk ko lool respecté ko séddu ko cër jox ko gëdd ak dayo waaye bu mu demee nag ba bëgg doxal mission bi ko yàlla sant muy moom baax na mais mbaaxam gi bëggul mu yem ci moom mais dafa bëgg mbaax gi daj ci ñëpp ci la ñu jóg ñoom waa Màkka samp seen ndënd ne loolu du fi am kon fekk yaa ngi nekk ci gox baax yaay soppee ñëpp waaye boo jugee pour baaxal rek yaay noonu ñu nit ñi moo tax ñu xatal ko fa lool ba mu génnee Makkatal Mukarram dem ma mën Madinatul Munawwara ngir jàllale mission bi waaye mbokk yi dañoo toll ci jamono joo xam ne tout le temps dama koy jàllale ci samay message yi may wax. mooy nit kii lu mu xam war na cee mën a màndu waxuma laa li nga xamut te damay dégg góor gu baax bu tedd gi borom bi jaaw bi sëriñ Bay si Abdou nee na fenkat piir mooy kiy wax dëgg juñ ko laajut koo koy fenkat toog di wax dëgg joo xam ne leer na ne li ngay wax dëgg la mais li ngay wax laajuñ la ko nee na koo koy fenkat boo ko jàppee jàpp ko waxuma laa nekk nga xam ne day inventé wax liñ ko wax loo wut wala mu wax lu mu fekkoo wut wala mu wax lu mu maîtriser wut réew mii ñu nekk di Sénégal euh, da ngay dem ba mu yàgg sax nga waaru jaaxle surtout xew-xew bi am fi bërki démb da ngay foog ne ñëpp ay enquêteur leen ñëpp góor jigéen mag ndaw kenn ku nekk ngi taal live defar vidéo defar ojo bind journaux euh, publier ah mbokk yi yooyu yëpp dañ leen koy laaj yomal sama mbokk mi journaliste yi nañ leen bàyyi xel. xaw ma majaay lañ koy wax xaw ma naka lañ koy waxee waaye buñ demee bay jàllale nañ jàllale lu leer loo xam ne ku ko déggale xam ne lii lu raisonnable la bañ a jàllale loo xamante ne da nga bëgg di jaay sa site wala da nga bëgg di am ay vi wala da nga bëgg di am ay gem yooyu jaru ko su ko defee dëggu baax na euh, al muslimu sadiq yuxibu sidqa wa yaltazimuhu zahiran wa batinan fi aqwalihi wa fi afaalihi nee na bu dëggu day bëgg dëgg ku si mel ni Seydina Omar ku yàlla baaxaloon tamu nangu dëgg gis nga Omar moo doonoon saxaba boo xam ne bu waxee dara nga imposer ñëw wax dara te li nga wax gën a yanu maanaa moom lu mu wax moom day accepté day nangu loolu muy kilifa waaye kilifa doonut koo xamante ne moom dafay wax ma ne lu mu wax rek looloo war a am lu mu wax loolooy nekk lu mu wax loolu lañ war a def mais kilifa dëgg mooy boo waxee da ngay déglu ñi nga jaboote ñoom it ñu wax li ñu wax ñoom ak li nga wax nga teg ko ci taabul bi li gën a rafet nga jël ko su fekkee ne ñoom li ñu wax moo gën a rafet sax nga jël ko mais dañoo toll ci jamono joo xam ne kenn ku nekk da ngay wax ne li nga wax ay dëgg li ngay wax moo raisonnable li nit ñi wax raisonnable loolu c'est pas normal nañ ko bàyyi xel kon julli dëgg dëgg dëgg euh, day bëgg dëgg en même temps day taqoo dëgg ci lu nëbb ak ci lu feeñ ci ay waxam ci ay jëfam nit ki war na mën a góorgóorlu moom jullit bi ba ko nit ñi ne jàkk bu waxee sax ñu xam ne kii lu mu wax lu yenu maanaa la am na ci ñoo xamante ne ndeysaan buñ jubee jotaay rek ñu doon wax dañ naan noppi leen diwa ngi ñëw de day am nga gis benn jotaay toog di waxtaan am kuy ñëw rek ñu ne noppi leen diwa ngi ñëw parce que lu tax mooy dafa mën a fen nga gis tamit jotaay boo xamante ne ay fenkat lañu de mais ñu am kenn ku kuñ gis muy ñëw ñu ne noppi leen di diwa ngi ñëw parce que lu tax moom dafa dëggu bëggul kuy fen kon yooyu lu mat a bàyyi xel yàlla subhanahu wa taalaa nag mu njëkk a wax ci alquran ya ayuha alladina amanu ittaqullah wa kunu maa sadiqin e yéen ni ñi nga xamante ne gëm ngeen maa ngi leen ni dénk ngeen ragal yàlla te ngeen ànd ak way dëggu yi gis nga yow taalibe bi booy ut sëriñ utal sëriñ bu dëggu yow jigéen booy ut borom kër utal borom kër bu dëggu yow borom kër booy ut soxna utal soxna su dëggu yow booy ut xarit sax utal xarit bu dëggu ndax dëggu mooy lépp waaye jamono ji na ma yàlla baal ah fenkat yi bëri nañu torop te fen baaxul te nañu bàyyi xel ni at bu jot at bu jot benn bàkkaaru fen la yàlla di baale ci sa dund gi waa imagine toi yow journée bi nga fen ci ñaar fukki fen semaine bi ñaata fen la war a doon weer wi ñaata fen at mi ñaata fen léegi te at bu nekk benn fen la yàlla di seppi baal la ko ca yow foo jëm ak say fen nanu bàyyi fenn yi baaxut fenn nag mooy wax dëgg juñ la laajut wala sax ngay inventé wala ngay sos yàlla subhanahu wa taala mi ngi tagg ci alquran ñi nga xam ne dañoo dëggu rijalun saddaqu ma aada allahu alayhi yàlla nee na am na ci ñoo xam ne dañoo dëggu ci luñ kólarante am na ci ñoo xam ne buñ kólaranteeg yow fekk feccee ko wot ci sa côté du feccee ko ci seen côté loolu mooy dëggu nit ki dafa war a dafa war a dëggu dafa war a am jikko yu kawe am lu mu jomb am lu mu rus ci dundam waaye kóolaranteeg nit tey balaa semaine bi di jeex nga wane jikkoy gore di jikkoy jaam jikko ju yées kooku baaxul nañ ci bàyyi xel nga demaat yàllaa ngi tagg ñi dëgg wa sadixiina wa sadixaat ci aaya boobu di indal muslimina wala muslimaat nga xam ne yàlla mi ngi mi ngi mi ngi ci mi ngi ciy remercier jullit ñu góor ñi di ci remercier jullit ñu jigéen ñi kenn ku ci nekk taxawaay ak pas bu mu am ci diine l'islam waa sadiqina wa sadiqat wuy dëggukat yu góori ak wuy dëggukat yu jigéen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek mu ngi am payoor yàlla yàlla ngi lay tagg yàlla mi ngi continuer di wax ci alquranul karim waladi jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun gis nga koo gis mu nga si nga nar koo seede ragal yàlla rek bàyyil xel ne jikko jikkooy dëggoo ngi ci moom ku dëgguwut du am ragal yàlla kon mbokk yi nañ leen dëgguwaat ci wax dëgguwaat ci jëf dëgguwaat ci melo dëgguwaat ci muamala muy jëflante gi te benn bu ci nekk jëm jamono jii nii ñu toll wor gi ak euh, wuruj gi ak fen gi ak tappale gi dafa bëri ci pénc mi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax ci benn xadis mu ne aleykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila al bir wa inna al birra yahdi ila al janna wa man yazalu rajulun yasdiqu yataxra sidqa xata yuktaba inda allahi sadiqa yenent bi nee na maa ngi leen di dénk ngeen di déggu ndax dëggu jikko la boo xam ne dalay jubale ci mbaax mbaax nag jikko la joo xam ne dalay lay yóbbu aljan nee na góor du dañ mukk di déggu continuer di dëggu ba ñu bind ci yàlla ne diw dëggukat la gis nga nit ki bu déggoo ñooñ osomaan ci boppam osomaanu juróom-ñaareel ñooy def benn bruit di xamal ni diw dafa dëggu diw dafa dëggu diw dafa dëggu diw dafa dëggu asomaanu sixième yëg ko ne lu xew ñu ne diwa dëggu ñoom it ñu koy coow ba ci asomaanu première bii tiim ñu ñu ne lu xew ñu ne diwa dëggu loolu nag la yàlla di wàccee ci xoolu jaamu yàlla yi foo taxaw wax rek ñëpp ne di wax parce que lu tax mooy da ngaa dëgg waaye am na ci ñoo xam ne it beneen façon bi mooy dañoo mën a fen mën a fen mën a fen ba buñ waxee rek ñu ne di wax na lan la wax ñu ne ay fen la kon su ko defee loolu war nañ ko di daw war nañ ko di daw wa inna li silqi samaratin tayiba yajnibuha sadiqun wa hadihi anwaauha nee na dëggu daal dafa am ay meññental dëggu garab la boo xam ne ay meññental ñu ngi ca ay meññet nee na meññet ya nag kenn du mën a lekk meññet ya lu dul ñu dëggu meññet ya bu ca jiitu mooy lan mu ne raxatu damir wa tumaninatu boo ko dëggukat foo ko gis day am tranquillité ku dëggu foo ko gis day am tranquillité mooy dara du ko déranger dara du ko stress parce que xam na moom dafa dëggu dangay xool dëggukat bu deful dara yit boo jàkkaarloog moom ci biir yi bët danaan xujj di la xool regard boo xamante ne yow mii ko nar a tiiñal sax yow yaay mujj tiit sëgg bu defee dara sax boo koy xool da ngay gis ne kii ku dëggu la waaye gis nga fenkat piir boo koy xool bët yi day warax waraxi comme bëtu jaan du toog benn place kon su ko defee benn ngi nun raxatu damir wa tumanintu ak ak dalay dalay dafa doon loo xamante ne dalay dalloo ñaareel ba ci meññantal yi nga xam ne ñooñ dëggu ñoo koy witti ci garabu dëggu mooy albarakatu fil kasbi wa ziyadatul xayri mooy koo gis mu dëggu rek dana am barke ci dundam te loolu dana leer tuuti ci kanam wa ziyadatul xayri ak dooleeku yiw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne albayaani bilxiyaari ma lam yatafaraqa fa in saddaqa wa bayana burika lahuma fi bayihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bayihima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kiy jaay ak kiy jënd feeg dëggoo ngi lalu ci seen diggante ñoom ñaar yàlla du dañ di wàccee barke ci seen mbir moomu nee na nag su fekkente ne kii jaay mi ngi nama wor kiy jënd kiy jënd mi ngi nama woor kiy jaay nee na yàlla day dindi barke bu namoon a dox ci seen diggante su ko defee ay war ak wuure ci ak fay am léegoo léeg nga gis ku jug uniquement dem pour dóor dem ci benn magasin wala dem ci benn bërëb di fa jënd dara mais dafa jug uniquement dem pour tappale nekkete ki fa fekk it moom it jug ne uniquement pour jaay jaayu tappale suwaat kenn ku nekk rey sa morom rek loolu baaxul barke ba yàlla da koy rocc ci seen diggante ñetteelu meññantal ba ci garabu dëggu nga xam ni way dëggu yi ñoo koy micc ñoo koy witt mooy alfawzu bi manzilati shuhada li qawli rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man saa man saala allahu shahadata bi sidqi balaqahu manazila shuhada wa in mata ala firash yenent bi nee na ku toog di ñaan yàlla dee ci shahid te ñaan nga dëggu ci sa biir xol yenent bi nee na boo dee ci sa kawlal sax yàlla day day validé day confirmer ñaan gi kon su ko defee loolu lan moo koy wane mooy dëggu ñeenteel ba di meññeental bi nga xam ne way dëggu yi ñoo koy witti ci garabu dëgg mooy an najaatu minal makruh mooy yàlla dalay lay muccal ci ay pexe xoolal Seydina Ousmane Sonko mën naa ko jël comme exemple diggante at yi fi jaar luñ ko tuumaal luñ ko kàmbal luñ ko gasal ci ay ndëgg sërëx luñ ko sosal luñ ko tiiñal benn bu ci nekk te ñu koy def ñëpp ay borom bopp lañu ñu am xel lañu ay nit lañu te dañ cee dañ cee eh, nu mu tuddati dañ cee def euh, conférence ñoom mi neen tëju te kenn fekkewul nas li ñuy nas gasal ko indi sërëx te yooyu benn bu ci nekk yàlla muccal na ko ci. xam nga lu tax mu muccam mooy dafa doon nit ku dëggu su daray caaxaan nekkoon ci moom loolu ñu ko kàmbal benn kàmbu rek mën na caa daam benn kàmb rek mën na caa daam. xoolal Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu mi ngi koy wax ci yonent yàlla Muhammad keroog bu ñuy dajaloo ci daa daaru nat wata bëgg a fexeel yenent bi ñii ne nañ leen ko nañ leen ko nangam ñii ne nañ leen nangam ñii ne nañ leen nangam waaye benn bu ci nekk yàlla mu muccal na ko ca parce que lu tax ñu dajaloo woon ñooñu ay saay-saay lañ ki ñuy fexeel kooku ku baax la te góor gu sell la kon xoolal Ousmane sonk rek doy na la exemple ci lii ñu war a jël mooy boo dëggoo rek mbooleem pexe bu nit nas jëmee ko ci yow pexe ba yàlla da koy nasaxal da kon su ko defee dëggu baax na mbokk yi gore baax na dal baax na tey baax na bul gis poñetutu àdduna buñ la tegal ba nga jaay sa ngor di fen déedéet surtout am na ci ñoo xam ne ci tiktok bi lañ nekk ci internet bi lañ nekk di jot salaire dara taxul nag lu dul ñuy yàq ay gor lu dul ñuy fenal ay gor lu dul ñuy tiiñal ay gor lu dul ñuy taasal ay gor nañ bàyyi loolu kooku baaxul am na ci ñoo xam ne dara du seen liggéey lu dul nekk ci internet bi ñu fay leen xaalis rek ne leen dama bëgg ngeen attaqué ma di waxal ko loo xamante ne yow daal yaa koy inventé loolu mu ngi fees dell ci réew mi li may wax ñoo ma ko gën a xam léegi nag kookee alal boobu muy encaisse di ko dundee wala di ko dundalee njabootam na xool rek du am dund ko tey ay njabootam duñ ko am te bu te du mujj fu baax te yow moom di jël sa xaalis di ko joxit ngir ci yàqal la as gor doo mujj fu baax kon nañ leen déggu baax na benn waay ñu daqe ko mu ñëw ci benn arab arab bee ngi jal benn jalu ñax bu mu ñëwee ne arab bi dama bëgg nga dimbali ma te yàlla tax arab bi ne ko nu ma lay dimbalee mu ne ko dafa am ñu ma dàqe te dañ maa nar a rey dama bëgg nga xettali ma nga làq ma fenn daal boo xamante ne duñ ma duñ ma duñ ma jàpp waa ji ne ko dugal ci ñax mi mu dugg ci biir ñax mi daal di ne tekk ñi ko doon dàqe ñëw ne góor gi amul benn waaju fi jaar léegi di daw góor gi ne leen ah kay ñu ne ko anam mu ne mi ngi fii ci ñax mi gars yi ne ko góor gi ñun ay farat si faratale la ñekk nga ñu fontoo quoi romb góor gi dem parce que ñoom yaakaar nañ ne góor gi da leen ni balak mais góor gi dëggu gi mu dëggu ci la yàlla sauvé waaju dugg ci ñax mi mais góor gi su fenoon naan leen est ce que jaar ni est ce que jaar ne seen xel yàlla da ciy dugal da ciy da leen di ilham ne leen est ce que wii di fii fii mais góor gi bu mu dëggoo rek ne leen mi ngi ci biir ñax mi gars yaakaar ne góor gi da leen ndax gars ci lañ romb waa ja ci barke dëggu góor gi mbokk yi dëggu dafa baax bu ñu jël paaka sax di ko teg ci prox gi dëggul goreel niteel màndul yi mooy jikkooy goron yi mooy jikkooy jullit waaye réew mi tey boo doon wër di seen gor ñi ñi ngay am duñ bëri de wa kam xorrin yaquma maqama abdin wa kam abdin yaquma maqama ma bëri waa na gor yoo xam ne seen gore dañ koy jaay jëndee ko gore xadi yi waa na jaam yoo xam ne dañoo xam li leen war ci seen diggante ak seen borom ba ñu jaay seen njaam jëndee ko gore gore baax na bu ñu topp mooy dëggu dafa am ay feeñuwaay yoo xam ne buñ gisee nga taxaw rek danañ ne kii da nit ku baax la nit ku sell la nit ku dëggu la c'est la même chose noonu la ñuy gisee nit ku taxawee ñu ne kii defeenkat la kii warkat la kii wurujkat la tappalekat la kon yooyu ay mbir la yoo xamante ne dañ ko war a xàmmee war ko bàyyi xel bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci jikkoy naafeq mooy ñett ayatu munafiqi salaasa isa xadasa kazaba wa ida waada aqlaf wa ida tuminal qaal moom du am ci yéefee naafeq moom boo ko déggee rek ci jullit gi la am jullit yoo xamante ne dañoo jënd seen carte membre ci diine ji di jéem a wor yenent bi di jéem a teg jël yenent bi di jéem a doxloo yenent bi yàlla nag yàlla nag wax yenent bi ne ko ñii ñëw ci sa di wane ak bi di wane ak euh, honnête dañuy fen dañuy tappale li ñuy wax gëmuñu ko bàyyi leen xel isa jaaka al munafiqun qaalu nasadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al munafiqun la kazibun bu ñëwee ne yenente bi ñun daal yow baax nga nangam nangam yàlla ne gis nga lu ñuy wax gëmuñuy dara ñoom ay naafeq lañu ay fenkat la ay warkat lañu kon su ko defee naafeq piir mooy ki nga xam ne bu waxtaanee rek fen nañuy daw loolu fen baaxul nañuy daw loolu fen baaxul maam Cheikh Tidiane si almaktum nee na bàkkaar yëpp bu ñu teewee bu fen juuxee ci seen biir ñoom ñëpp ñu daw làqu ngir danger gi fen danger léegi nag ñu toll ci jamono joo xam ni góor a ngi fen jigéen a ngi fen mag ngi fen ndaw a ngi fen sëriñ a ngi fen taalibe a ngi fen waa ñu ban jamono lañ toll te boo ko waxee ñu ne diw amul yar amul respect te li may wax ñoo ma ko gën a xam nga gis sëriñ bu toog ay taalibeem wir ko muy wax te li may wax leer na ko ne moom day fen taalibe yi leer na ko ne day fen mais nañ dépassé loolu nañ jombale suñ dund gi yu bari am na ci yoo xam ne du ju koy góor du koy jullit du ju koy sang buñ jàppee ne julli geeg or geeg nasa asaka ji aj màkk gi tante yi riir rumeur bi rek déedéet dafa am leneen lu yàlla soxla ci ñun lu bokkut ak yooyu. moo tax bu ca jiitu mu ne ci ni ñuy naa naafeq mooy bu waxtaanee fen ñaareel ba bu bu bu joxanteeg yow rendez-vous da koy fausé ñetteel ba bu kóllaranteeg yow dafay wor su ko defee yi mooy ci koy bu ca topp mooy sitqul muamala mooy jullit bi war na mën a góor góorlu ba buy jëflanteeg nit mu dëggu bu mu wor mukk bu mu ca bu mu ca bu mu ca ndëxe nit caay-caay. ba mu war ba mu cënd xiñ caay-caay nga gis ku am relation nit di jëflanteeg nit mais jëflante bi yëpp ci ay wor ak tappale fen la aju kooku baaxul nañ koy daw àq la bu ca topp mooy sitqul azm mooy nga doon koo xam ne boo dogoo da ngay dëggu ci dog gi jullit bi foog muy dogu tey dëggu ci dogoom foog muy dogu tey dëggu ci dogoom man de fas yéene naa bàyyi lii suba ak jàmm nga def xam naa mosaat tey rek déedéet man de danaa def lii suba ak jàmm nga ne ah damaa sonn tey déedéet foog nga doon kuy dogu di xeex sa bakkan di xeex ak seytaan yi ba not sa bopp ci dëggu loolu dafa am solo bu ca topp mooy sidqul yi mooy rendez-vous waxtu wu nekk dee ko respecté di ci dëggu ñeenteel ba mooy sidqul xaal mooy yow buñ la xoolee sa physiquement rek xam ne yow ku dëggu nga da ngay xool ñi nekk ci ci ci ci enquête yi buñ taxawalee nit buñ xoolee rek dañ xam yow ban genre nga. buñ xoolee ci xaal rek danañ xam yow mii fenkan nga wala ku dëggu nga danañ xam ko baax nga wala baaxoo danañ xam yow ci réseau bi nga nekk wala nekkuloo ci réseau bi yëpp dafa dafa am solo fu ñu koy terminer nag mooy ku ñu tuddee imam Bukhari yi dafa am jour mu génn di sàkku ji xadis bu wér moom imam bu Bukhari yi bu mu génnee dem ba ci benn barab romb benn góor góor gee ngi yor leket di ci nax fasam bi imaamu Buxaari ne ko leket gi nga yor di ci nax sa fas bi ndax leket bi dafa am lekkam déet imaamu Buxaari ne ko déedéet damay nax fas bi rek ngir jàpp ko imaamu Buxaari ne ko man duma jëlee sama xadis ci koy fenal bahima yi xoolal niveau bu kawe bi imaamu Buxaari am du ma jëlee ci samay xadis ci kuy fenal bahima yi kon nag rawatina koo xam ne da ngay fenal ay nit dangay fenal ay gor dangay fenal ay kilifa su ko defee am na lu bëri loo xamante ne war nañ cee mën a yarat suñu bopp te dëgguwaat te bàyyi fen di bàyyi tappale di bàyyi wor di waaye wuruj yàlla na nu yàlla defal jégg ak topp defal ñu sutura ak najaax defal ñu tey taysiir ci dara jën ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jàppandalal ñu jàpputeef yëpp zahiran wa baatina may ñu gudd fan ko ànd ak wér barkeel ñu barkeel njaboot gi suturaan ñu suturaan njaboot gi sàmm ñu sàmm njaboot gi aar ñu aar njaboot gi di ñaan yàlla gàmmu gi ñu ñëw ñu fekkee ko jàmm ak tal dañ fi def yeneen waxtaan seen mbokk la seen soppe seen xarit Mouhamed Tayyib Cissé di wax rek ne in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh